li ci gën a fës muy kaddu yi jawriñ joro wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr xam na ne ubbi nañ enquête ngir leeral mbirum lakk gi faat ñeenti liir ci hôpital bu Linguère mu demoon dem foofa ca Linguère gannaaw jëye jooju liggéeykat yi nekk ci hydrocarbure di wàllum pétrole ak carburant dakkal nañu seenub grève beneen nub ndaje doxoon démb seen diggante ak ministère du pétrole laata nag geneen nub ndaje gun jàpp àllarba bi ñu dëkkmal la tàggateeram football doomu Sénégal bi di Ismaïla Sarr delloo si équipe Watford ci première division ca Angleterre mu dugal but bi yeggal Watford yaatal gi ci sport weekend lay doon mu nekk li gën a fës xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcce Elhadj Ndiogou Diène ànd ak Amady Ndiaye ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak euh, yamba gu police Tëngéej teg loxo euh, bi ñu ko xaymaa nag daanaka jege na euh, genn wàllu tonu yamba boo xam te ni police bu Tëngéej mi ngi ko jàpp ci gaal ca jokkul leeral yeeg Abdou Diouf Diagne. ñeenti saaku yu téeméeri kilo. benn saaku bu juróom fukki kilo ak ay vrac lii mooy liimu yamba bi nga xam ne élément yu commissariat central bu Tëngéej daal nañ ci teg loxo drogue bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn gaal ci plage bu Jokkul la nekk ci commune bu Rufisque Ouest gars yi commissaire Bodian yi ci biir géej gi la dem ngir daal di teg loxo defkatu ñaawteef yi opération boobu nga xam ne commissaire Babacar mbay Diouf moom moo ko jiite ñu ngi ko amal ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu nekk juróomi nit nag tegagun nañ leen loxo xabaar yu bëri nag mënagun ko cee am enquête bi nga xam ne gaa yu commissaire Bodian yi ubbi nañu ko danañu gën a leeral lii mu yàmbaa bu takku boobu fan la jóge ak fan la jëm RFM Abdou Diouf Diagne Diouf Abdou Diouf Diagne euh, dem ba Linguère ak xew-xew bi nga xamante ne euh, moo yënga réew mi depuis démb ba léegi di ay liir yoo xamante ne dañoo faatu euh, ci lakk ca nag hôpital Magatte Lô bu Linguère am na yeneen ñaar ñoo xamante ne ñu ngi réanimation ministre bi ñu dénk wér gi am solo dàllam démb dem foofu ca Linguère xool mbir na mu demee moom nag méttitu na ko bu baax a baax ne nguur gi dina jàppale njaboot gi lu weesu lool tamit Abdoulaye Diouf Sarr ne ubbi nañ ci enquête ngir xam mbir yi nan la demee déglu ko moom ministre Abdoulaye Diouf Sarr. dañoo ñëw fii si hôpital Magatte loo avant may euh, continuer di wax sax dama bëgg donc euh, vraiment euh, ñaanal les familles. fekk naa fi ñetti jigéen yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen métit tar na métit boobu nag Sénégal yëpp mu ngi koy partage ak ñoom président de la République Macky Sall mu ngi koy partagé ak ñoom. gouvernement du Sénégal mu ngi koy partagé ak ñoom peuple sénégalais yëpp ñu ngi koy partagé mais li ñu seetlu aussi lu mu métti métti nangu nañ ko ak dignité ak gëm yàlla loolu tam vraiment mooy loo xamante ne lu ñu seetlu la. Euh, bon nag euh, li ma leen mën a wax rek mooy que ne bi ñu ko yogee tey si suba la ñu bàyyi lépp lu ñuy def jóge Dakar ñëw fi man nag euh, sama collègue monsieur le ministre nga xamante ne moom mooy yor solidarité national sàmma Diabène muy doomu day région bi ñëw pour. bokk ak métit bi ak famille yi ne leen nag gouvernement bi rôle mooy mu ànd ak ñoom mu gunge leen jàppale leen ba métit bi ñoom rek ñu bañ ñu bañ ko bokk mais ñu bokk ko askan bi waaw yaakaar naa ne loolu moom dafa nekk loo xamante ne d'ailleurs euh, lu évident la euh, incident bu mel nii bu amee li ñu war a jëkk def mooy déjà ñu xool lan moo ko waral moo tax d'ailleurs euh, mënuma donc avancer trop techniquement si dossier bi damay bàyyi enquête bi mu déterminer lan moo waral incendie bi bu ko defee nag ñun ñu mën a xam effectivement donc naka lañ si war a mën a taxaw. mu nekkoon euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci micro TFM moom ministre bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram kon démbam nekkoon foofule ci hôpital euh, Magatte tey ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril di bés bi nu jagleel euh, xeex si sibbiru ci àdduna bi fii ci Sénégal nag jéego yu am am solo def nañ ko bu ñu sukkandikoo ci gi nga xam te ne moom la ñu dénk programme bi xeex wàllum sibbiru ca ministère de la santé teew nag am na ko yoo xam te ne ba léegi nag jàngoro ji ci mel ni bët saalum réew mi ci xayma nag lu toll ci trois cent quatre-vingt-quatre mille di ñetti téeméer yi tegal juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti junni doomu aadama faat nañu ci siburu ci Afrique ci atum bi ñu génn huit tegal juróomi minutes. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di grève bi nga xam te ne ñi yëngu ah, ci wàllum carburant pétrole ñi ngi ci woon chauffeur yi doon grève boobu ba léegi waaye grève boobu nag mujj nañ ko teg ci suuf gannaaw daje boo xam te ne nañ ko démb ak kilifa yu ministère du pétrole et am na nag geneen ko koo xam te ñoom ak waa nguur gi war nañ ko seqaat nag àllarba bi ñu dëkkmal ngir wax nag ci seen tawat bokk na nag ci li ñu laaj ñoom chauffeur yi di yëngu ci wàllum hydrocarbure maanaam nag ñu boole leen ci barème bi nga xam ne moom lañ tëral jëm ci wàllum hydrocarbure hydrocarbure Modou Anne moo jitee ci chauffeur yi nekk ci wàllu hydrocarbure ñoo déglu ko ak Pape Ba li ñu mën a leeral askan wi ci grève bi ñu doon grève ci wàllu àq ak yelleef li nga xam ni moom lañ doon laaj tey bi ñu demee daje nañu ak le secrétaire général du ministre waxtaan nañ trouvé nañ terrain d'entente que ni mercredi prochain incha allah ci la ñuy soog a commencé négociation yi waxtaan ni ñu mën a xoole ba Euh, li nga xam ne moom lañ leen di laaj ñu defal ñu ko. balaa ñu ci egg seen grève bi levé ngeen moo door bi. ma ne fi mu nekk nii suñu secteur ñun ku liggéeyut rek yaa ngi tooñ. lu ko dooree kon ci waxtu wi ñuy wax ak yéen. liggéey bi ah, door na kay 16 heures ba léegi kay liggéey bi door na gaa yaa ngi liggéey. oto yi ñu ngi dugg di chargé am na ñi chargé woon ñu ngi dem ci station yi di livré. tey dañ ñu woo woon pour négociation mais. avant loolu dafa am lu jiitu woon suñu syndicat bi dafa demoon waxtaan. ñu waxoon ñu le vingt huit mais ñun dañu bañoon vingt huit bi. donc bi ñu continuer suñu grève bi. ministre bi moo woote ne nañu ñëw daje toog nu ñu xoolee parce que ñun. dañuy grève nag mais duñu xool duñu grève a grève ba xool loo xam ne nii day lor euh, askan wi. parce que ñun euh, ay liggéeykat lañ. bëgguñu luy gaañ askan wi bëgguñu luy lor askan wi parce que bu ñu loree askan wi suñu bopp lañ lor bu ñu gaañee askan wi suñu bopp lañ gaañ. ah kon gis ngeen ni kon commencé woon na gaañ askan bi bu baax a baax voilà bu baax a baax buñ ñu woowee ci waxtaan nag dañuy dem wuy ji wuy ji nañ xool nañ parce que dañuy waxtaan rek xool lu ñu mën a déggoo ba li ñu bëgg ñu am ko ñoom it euh, li ñu bëgg ñoom ñun ñu defal leen ko ñuy xool ñu yokkale suñu indemnité de logement ak ñu ñuy yokkale suñu prime de risque. mu nekkoon euh, Modou Anne secrétaire général GIE bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum hydrocarbures di chauffeurs yi waaye nag dafa mel ni dogal boobu ñoom ñëpp ànd ci ndaxte am na yenn chauffeurs yoo xam ne ñoom xeex bi nee na dañ koy wéyal ba fekk ñuy saafara seen i tawat ñuy sàkku tam ñu bàyyi ñaar fukk ci seen naataango yoo xam te ne jàpp ci mari bu Anne ndongo ka chauffeur yi liggéey nag ci wàllu carburant bi nii la ñu nasoon nag nocc ko ci seen gerewu ñetti fan yi pusuñu ci meetar ñu ne nag daal dina ñuy fippu te faawu nag ñëpp xam ni ñoom génn nañ nag ci syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz bi kii di Yéri Fall moo yore seen kàddu ñun nag suñu problème lii la dañoo signé woon ak suñu syndicat suñu délégué dem wax ak syndicat bi syndicat bi ne dañ def grève bi ñu demee grève 72 heures même pas 24 heures syndicat bi lase ne day lever mot d'ordre bi xamuñu raison yi Cheikh woon nañ ko ginnaaw nañ ko lu leer na ko won nañ la ginnaaw képp ku nekk ci transport hydrocarbures yi fi ne nii won nga see jóg ginnaaw parce que ñun suñuy besoin satisfaire ñu ñoom ñi nag ñu ni seen revendication yi fañ ci nekkoon lañ ci toll ba léegi dara soppikuwu ci la ñuy sàkku nag ci seen njaatige yi moo di nekkin wu mucc ayib ci seen wàlluk liggéey suñu payoor bu baaxul ay soixante-dix mille francs la ñuy fay chauffeur hydrocarbures amoo sax frais normal amuñu contrat amuñu këyit dañoo bëgg ñu jox ñu ay këyit yu leer nañ embauché ñu indéterminé parce que am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci kër yi plus de dix-huit ans ñii ay quinze ans te amuñu contrat bénévolat lañ leen jëlee te loolu du yoon ñun d'accord ñu ci loolu président de la République lañ bëgg a lancer message président ñun laaj ñu xaalis ñun lu ñu laaj yomb na nañ jox suñuy droit convention bi ñu signé woon ak ñoom nañu nag teg loxo seenuk lim nag toll si ñaar fukk ñoo xamante ni bu Anne Maris moo leen daal dee téye mu toll nii jàpp nañ suñuy camarade lu mat ñaar fukki nit pour lan xoxotal ñu pour ñu arrière dellu ginnaaw ñun suñu bakkan lañ ci teg ministre bi nee woo nañu pour wax ak fan a ngi nii carburant bi doom bu góor la ci dëkk bi kenn mënu koo teg bët ci station service yi foo ci dem mbooloo mi nag ña nga fay taxawaanu di dundee yaakaar ndonga ka Pikine rajo Futur Media. ndonga ka askan wi nag yëg bu baax a baax grève bu nga xam te ne chauffeur yu carburant yi ñu ngi ko daan amal waral nag ba ñu bëri ay jafe-jafe la leen jural ñu koy mettitlu reportage Ndeye Mati Dieng lu tolloog fanweeri dawalkatu taxi ñoo tëdd ci suuf di xaar ku leen ni fii mbaa fee am na carburant. Mamadou Diop ay waxtoo ngi nii liggéeyul. dem dañu wëri fu ne. buñ dégg na am na gasoil dem nañ fa pour jéem a xool mais amuñu gasoil fenn. fi nekk ñi am gasoil it buñ la nee bërëb sàngam am na gasoil boo demee jeex. depuis démb daal liggéeyu moom taxaw rek nga mën a def. bu fekkee client bi dafa jëm ci yenn lieu doo ko mën a jël. parce que amuloo gasoil bu doy. ñu doon dem jëm tey sama côté kër fi ma dëkkee damay obligé yóbbu leen ñibbi wale ci wetam ab jaaykatu fëgg jaay moo fa lal client bu romb mu daal di lay woo. Ah? moo ne de Moussa Ngom dawalkatu taxi la waaye ñàkkum carburant moo ko dugal ci jaay fëgg jaay. dama taxaw maa ngi jaay fëgg jaay fi mu ne nii ndax problème mu gasoil. maa ko gaaree parce que amuma gasoil léegi fëgg jaay maa koy jaay. boo amul gasoil doo daw di ñun lakkuñu ndox. man maa ngi gaaree sama oto depuis démb ci ngoon. léegi ma dem jënd balo fëgg jaay di ko jaay. beneen chauffeur ngi bu ñu taseel moom it daa gaar otoom. sama oto nga ñu lay fekk kaw gasoil ak moto bu son ko dépassé am na oto taxaw foofu sama oto la amul gaar. vélo yor nag. ah may dem aw ma liggéey fi mu toll nii fan laay jëm ma gisee tey lu ma. entraîné yëgal dawalkatu oto yi séddale carburant bi nasaxal na loolu dem bi ak dikk bi borom oto yeeki moto yi di ñaan rek saafara daal di gaaw am ndax ñoom it ñu mën a tàmbaliwaat seenum liggéey. Ndeye Mati Dieng des ba léegi ci wàllum delloo dem beeg dikk bi ak ñi nga xam te ne ñooy borom moto yi ñoom nag borom dëru yi euh, ni nga ko waxee woon ca keroog ba ñuy dajee ak njiitu réew mi ca jam ñaajo ne jotuñu seen wall ci koppar yi nga xam te ne moom la ñu jagleel euh, ñii mbas mi di coronavirus laal koppar yi kon ñoom jot ñu seen waal di fond force Covid 19 mbootaay gi leen ëmb ne nag eh, li wetu wóor moo di ne koppar mi ngi trésor séddale mi rek moo des démb lañ ci doon jënd ak taskatu xibaar yi ñoom mbootaay gi ëmb borom dëru yi Angelina Gomis. dawalkatu jakarta yi seen xel mën na dal fii ak ay fan yi néew dinañ jot seen xaalis ku ñu koy xamal di Mamadou Ndiaye président réseau bi nga xamante ne dafa ëmb dawalkatu deux yi. mais yaakaar naa ci fan yu xaalis bi mën a jëm ci ñi nga xamante ni ñu daal di ko interpellé eh, ci ndaw ba boo eh, ci turu dawalkatu jakarta yëpp ci kanamu njiitu réew mi di Macky Sall eh, Mamadou Ndiaye nag moo ni daal di xamal ne loolu ñàkk déggoo ko waraloon. loolu manque d'information la woon rek mais loolu c'est disponible mi ngi trésor loolu ñun am nañ ci am nañ ci lu leer moo tax ñu jël suñu ay responsabilité pour wax ko mënuñoo séddale xaalis bi te ñi ko war a jot matuñu donc lenteur administration Sénégal ñëpp xam nañu loolu kese moo tax xale yi jotuñu ko mais lu mu gënee gaaw ak ni président actionné ko bu soobee yàlla ñi ko yéexaloon yëpp dinañ ko gaawal pour xale yi mën a jot seen xaalis. Euh, réseau bi nag moo ngi amal ay négociation ak ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum transport ngir dawalkatu deux-roues yi euh, daal di muté seen moto yi te duñu si fay dara ak permis de conduire yi. ñu ngi waxtaan ak suñu ministère tutelle monsieur Mansour Faye jiite ko ak ay techniciens pour mutation gratuite euh, ak xale yi nan la amee permis de conduire. ñoom nag amal nañu benn projet ngir wàllum création milliards projet boobu nag daal nañ koo jébal ki nga xamante ne mooy ministre bu ñu dénk wàllum jeunesse réseau bi di xamal ne projet bi moom ñoo ngi koy dippee magasin de référence bu daal dee fas yéene yëngu ci wàllum jaayu pièces détachées ngir dimbali ndaw yi ñu daal di am liggéey pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8 tegal fukki minute ak ñett si way ci xibaar yu wax lu soxal wàllu njàng mi ak eh, université El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack dalloo ay lal ak tamit ay matelas orthopédique directeur bu kudd moo leen ko baaxee ngir nag nekk nu étudiants yi gën a jàppandi di loo xam te nag eh, rafetlu nañ ko eh, di xaar nag ñu saafara seen yeneen jafe-jafe ñoom étudiant université El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack Ibrahima Diame. ay lal yu bees tàq ay chaise ay matelas orthopédique ci biir benn magasin résidence université El Hadj Ibrahima Niass par direction du kon lu jëm ci wàllu budget ci atum 2021 ne lu ci bëri da koy dugal ci njëndum jumtukaay yi nga xamante ne étudiants yi dañ koy soxla ci seen biir néeg yi Maguette seen moom mooy directeur général bu COD. COD objectif am leen mooy sunu résidence yëpp muy Dakar muy Sine Saloum muy IAM dañoo bëgg équiper leen ba nga xam ne étudiants yi seen nekkin dina yokk. je crois que tey université Cheikh Anta Diop ku fa ñëw di xool environnement extérieur bi ni mu rafetee waaye bi ñu def budget bi étudiants seen bopp ñooñu nañu ci biti rafet na waaye ci biir moom ñaaw na moo tax ñu def objectif ren fexe ba chambre yi ni biti bi mel ci rafetaay chambre yi mel ko ci rafetaay mooy équipé leen ak meilleure qualité ba pare nag accompagné leen. lii ko bu baax ndax seen conditions sociales yi bëri li muy bokk ci seen ñaxtu Ibrahima Ndiaye moom moo jiite amical étudiant yu ISEN. matériel yi nga xamante ne directeur kudd monsieur Maguette indi ko fii nii tey ci campus Kaolack pour gunge ñu nga xamante ne yu bees yi nga xamante ñoo jógee fépp ci Sénégal pour ñëw jàngi see fii Kaolack dañ koy rafetlu di si kontaan parce que boo xoolee matériel yàqanal dund étudiant bi fii nii ci biir Kaolack. fii nag ci diwaanu Kaolack daanaka résidence étudiant yëpp dañ ko loué waa COUD ñoo koy fay daaw ñu ngi woon ci ñeent waaye ren ci la ñu ngi ci juróom-benn étudiants yi nag ci seen wàll dañuy contribuer ci 3000 francs CFA bu weer jotee Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame wax lu saxal wàllum xëy ndaw ñi ñu doon ko waxtaanee nag ca Kébémer lañ ci jublu nag mooy nag la ñuy fexe ba ca diwaan ga ndaw ñi ñu mën leen jàppale ba ñu am am xëy tamit. ci lu ñu mën a jàpp leerali euh, Abraham Paul Puy Odelec nekk organisation boo xam ne dafa ëmb ay ndaw ngir ñu mën a xeex mbëkk mi nekk ci département bu Kébémer moo amal forum ngir waxtaanee wàllub xëyub ndaw yi muy ab occasion boo xam ne dañ doon sensibiliser di informer ndaw yi ci kuréel yi nga xam ne nguur gi teg na ko ngir mën a financer képp ki nga xam ne am na projet Cheikh Niang moom Odelec la bokk. kon ndaw ñi dañu soxla non seulement financement mais dañu soxla euh, formation pour que financement yi ñu accompagner leen pour que ëllëg ci si biir ñu mën a seen ay projet ngir liggéey gi gën a yomb nag bala loolu mairie bi ak conseil communal de la jeunesse bu Kébémer dañoo jotoon na taxawal ab observatoire jëm ci wàllub xëyub ndaw yi ci nii nag lu ëpp 1500 ci ay ndaw ñu jot leen a suñu sukkandikoo ci meeru Kébémer Lamine Thiam. état bi itam tey jii société yi fi nekk ñëpp ak organisation yi dañuy wax ni lii la lii la nguur gi tëral pour jàppale leen léegi kon danañu ak liggéey bi ñu def xale bu ci nekk lan mooy sa soxla ak fan lañ la war a awale pour nga am liggéey. partenaire u bi nag nekk DER ñuy woo jigéen ñi ñu inscrire bu baax. ak notes yi ñu jël ak xale yi bu ñu inscrire ci plateforme bi yaakaar naa ne mën nañu enveloppe département de Kébémer mun na mun na gën a yokk ak organisation forum bi bi tax na ba ndaw Kébémer yi ñëwaat ci potentialité yi nga xam ne département bu Kébémer am na ko ñu dalee ko ci wàllu béy dem ba ci tourisme bi ñu jaaree ko ci élevage. ba ci artisanat bi mu nekkoon Abraham Paul Puy Kébémer rajo Futur Média. Abraham Paul Puy dellu si fii ci Ndakaaru wax ci conférence diine bi nga xamante ni Renofis di mbootaay gi ëmb ñu yëngu ci wàllum aj ak ko amal démb ci koor gi ñu waxtaan ci nag nag la ñuy fexe daal ba suqali lii nga xamante ni mooy tourisme religieux maanaam wàllum diine naka la mën a nekk loo xamante ni tax nit ñi di ñëw ci Sénégal di nemmeeku réew mi ak bu diine yi fi nekk Urey Thiam mu yor du kàddu kuréel googu di Renofis ñu déglu ko ak Pape Siba ñun waa dañoo décidé gis ni comme que presque ñaari at a ngi nii defuñu benn activité ñu ne nañu woote def conférence religieuse ci weeru koor gi bii nag tàmbale la waaye li ñu bëgg rek mooy euh, dekkalaat euh, pas-pas yi dundalaat xol yi waaye waxtaanee loo xam ne it moom moo ñu boole mooy acc waaye xoolaale it perspective yu bees yi parce que xam ngeen ne Renefis jot na fay jox ay membre am financement wu 300 millions jot naa def campagne de vaccination pour membre am yëpp léegi bees mooy tourisme religieux xool li ci biir réew mi naka la ñu koy valoriser ba la nga xam ne moom la ñu doon def ca Màkka di dem ci bërëb yu tedd yi bërëb yu am histoire yi bërëb yu dëppoo ak diine yi ñu def ko fii ci suñu biiru réew liggéey ci ak waa ASPT ak waa ministère tourisme loolu nag bu ñu ko defee waxtaanee ko suñu ay membre dinañu mën a permettre ñi nga xam ne dañ toog liggéeyuñu ñu am ci lu ñu yëngu waaye ñi nga xam ne dañuy toog nam ma màkk nam mi waxtaanu màkk tamit ñu féexal seeni xol ba kenn xamul ba xam aj dina am wala du am waaye ñu ne rek nañu toog waxtaan ba nga xam ni même bu doon ne day amit nit ñi xam naka la ñu koy waajalee ndaxte xam nañ ne mbas mi am na te bu dee dara dafa nar a amit dana changé lool lool ñu teel cee waajal nit ñu teel ko waxtaanee waaye it féexalaat xol yi delluwaat nag ñaanal ñëpp ñi nga xam ne jot nañoo nekk ci communauté bi te génn àddina ak ñi nga xam ne jot nañ fee jaar en tant que ay euh, commissaire ñu ñaanal leen yàlla bu baax a baax defal leen it ay distinction nekkoon sababu bëccëg bi. ak RFM kumpa jeex na. egsi ci wàllum politique ak kàddu yi nga xam te ni kii di Barthélémy Diaz moo ko yëkkati moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur euh, gis ne dàq ko élection locale yi du dara lu may pexe yoo xam te ne Macky na ko tëral euh, ngir euh, daal di des ci nguur gi jëm atum 2026 2027 ndaxte gis na ne daal li ko waral mooy pétrole ak gaz bi feeñ ci réew mi Barthélémy Diaz ne élection locale yi ñuy wax ci weeru janvier atum boo moytuwul dàq la jëm ndaxte day tombé Coupe d'Afrique bu football loolu yëpp pexe la boo xam te ne nguur gi bi ñu koy tëral ñoom ñoom duñ ko seetaan Barthélémy Dias yëkkati yooyu kaddu dem ba gannaaw ab ndaje boo xam te ne ña nga doon amal ca Parcelles Assainies ay kaddoom ci micro man amul kenn fii bi réew mi. bu mën a expliquer lu tax président Macky Sall di xëccoo ak opposition organiser élection décembre deux mille vingt et wala janvier deux mille vingt deux te su ngeen xoolee lu opposition di proposer ak lu président Macky Sall di proposer daanaka weer sax doxul seen diggante. janvier deux mille vingt deux bu mu leen bëgg a yóbbu noonu. excuse bu mu leen bëgg a jox mooy la coupe d'Afrique des nations où le Sénégal est qualifié yàlla na yàlla may ndam équipe nationale du Sénégal wante lii di élection foog mu am parce que élection su amulee leneen mooy am moo tax président Macky bu muy wax su ngeen gisee bu baax waxu ko ci tubaab daf ko wax ci wolof parce que suy wax ci wolof askanu senegal lay waxal suy wax ci tubaab nag nasaraan yi lay waxal te wax ji mooy lan mooy waxu nappaate mooy waxu xoqatal lu ko mbir bi jaral ñun tamit la ñu mbir bi tamit am tamit lu mu ñu jaral parce que nag noo yor réew élection naroon am ci 2019 nga woote 2020 tey 2021 ñu ne la décembre 2021 nga lank bañ nga ne da ngay dem janvier deux mille vingt deux soo organisé wulee élection lu fi amoon à la kulli à lu ko yées moo fi amati. Dakar vote depuis le dix neuvième siècle. Dakar dañuy voté fi depuis mille huit cent soixante douze. président Macky Sall ndaw na torop bu taxaw tey nekk Dakar duñ fi voté wala Dakar dañ koy tas kenn du ko final. le président Macky Sall est obnubilé par les rétrocommissions des contrats pétroliers et gaziers. mu nekkoon euh, Barthélemy Diaz euh, maire bu Mermoz Sacré-Cœur bokk euh, ci coalition taxawu Sénégal bi xalifa Sall jiite des ba léegi ci wàllum politique ak député bi di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di député bu parti bi di bokk gis-gis bu Pape Diop moom nag député bu bokk gis-gis bi ne dafa fas yéene porte plainte nguur gi li ko waral mooy juróom-ñetti fukki milliards yi ñu génne woon ngir wàllum assainissement ak chantier foofa ci Touba duggul foofu na ne moom nag li ko jaaxal mooy mu dugg ci wàllum chantier yi nga xamante ni nguur gi amal na ko foofu la ca diwaanu Touba démb la demoon nemme ko ci yoolee fii ci diwaan bu Touba mu ne nag bu weesoo chantier yooyu nga xam ne dara eggu juróom-ñetti fukk milliards yi nga xam ne nguur wax na ne def na ko fii ci diwaan bu Touba dara du ci dëgg. deuxième corniche deux fois deux va am assainissement am éclairage public. fon tàmbale woon fa la ñuy yem. boisson pompas bi nekk wetu kër Serigne Bass Abdou Khadir. boobu tamit mi ngi nekk cent kooku sàcc la àllu réew mi hôpital bi nag mu wax ni quarante deux milliards la mu wax ni maanaam mois de mars bii ñu passé hôpital dana ubbi hôpital fii ak juróom-ñetti weer muntu ubbi milliard deux moo fi nekk ak ñaari cent ak sept milliards li leen wax ni moom la Macky dugal Touba mi ngi nii te lii may wax ak yow liggéey bi àggul te fay xaalis boobu noonu kon ku ni Macky dugal na fi quatre waxuloo dëgg. visite bi nga fan yi fii ci diwaan bu Touba tem nu liggéeyu mag yi lépp gongo mu ne du lenn lu dul politique. jàpp naa ni kooku day nelaw te jaay askanu Touba ngir ngi wax sëriñ bi di wax sëriñ Bass Abdou Khadir nañu dindi li nga xam maanaam moo yor communication màggalu Touba gi ndax mérito wu ko ndax koo xam ne da ngay far di politique moo tax dem na ba nga xam ne communication bi war a def si màggalu Touba gi sax léegi askan duñ ko déglu ndax. député bi nag nee si assainissement Touba bi ak li xam mooy xaalisu hôpital bi nu mu gën a gaawee la soxna ni bu ñu ko deful dana leen porte plainte yóbbu lañ ci yoon. maanaam nag li mu tënk mooy liggéeyub Macky Sall fii ci duwaan bu Touba lépp dafa tàggatémbe Marème Diop fii ci Touba RFM. RFM si léegi ci xibaaru tàggat yaram sport weekend ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dalee nag jam ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne mu fi téye ci micro bi ci machine gi Matar Sarr daal di ko dooree ak wàllu football ak championship moo di deuxième division bu championnat bu Angleterre Watford bu Ismaïla Sarr daal di na yéegaat ci li li nga xam te moo di première ligue bi gannaaw benn at bi nga xamante ne def nañ ko ci deuxième division la ko waral nag moo di ndam li nga xamante ne am nañ ko ci samedi gi gannaaw ba doon jongante ak ñii di waa benn bal ci dara bit boobu nag ki ko dugal sax moo di Ismaïla Sarr ab penalty Watford ne moom itam jotoon na yéeg ci li nga xamante daal moo di Ismaïla Sarr nag euh, gannaaw euh, saison bi donte jeexagul jot naa dugal lu toll ak fukki but ak ñett pour équipe bu Edouard ni jamono gi bokk na si ñeenti équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo raw ci championnat googule ñoom samedi gi dal nañoo am ndam seen digg ak ñi di waa West Ham United benn bal ci dara seen bi di Timo Werner Edouard Mendy moom itam ma nga doon góolu ci équipe bi di Chelsea Liverpool bu Sadio am lu mu rëcc lool ndax moom jekkoon na ngir mën a am ndam li waaye ci simili gu mujj euh, ci temps additionnel bi la ñoo daal di kon boog bitu égalisation 1 seen diggante ak ñi place bi ñeenti poñ euh, euh, ki dimanche allah la fas yéene kon bokk yeggali yenn ci ay jongante 11 diggante Wolverhampton lay daal doon ak Burnley 13h Leeds United dina dal dalal Manchester United nga xam te ni moom moo féete jamono gi si ñaareel place bi fukki poñ ak benn daal di dox ci diggante mag Manchester City féete ci place bu njëkk bi 18h diggante Aston Villa ak West Bromwich ba tey ci euh, dimanche gi altine diggante Leicester lay daal di doon troisième ak Crystal Palace bu euh, Cheikhou euh, Kouyaté Paris Saint-Germain ca France jamono gi moom moo nekk gum ci bopp raw gàddu gi la waral moo di ndam lu yaa ba mu am ca mes ñetti bal ci benn Kylian Mbappé jot a ñaari bit ci géewagule jongante ñoom nag fi mu toll ni ñaari poñ daal dox seen diggante ak Lille mi xam te ni 19h dana am xew lu rëy ci diggante mag ñii di waa Lyon si dimanche ki lañ koy daal di amal ñoom waa Lyon euh, jamono gi ñi nga féetee si ñeenteelu euh, place ñi nga waa Lyon waaye ñi si ñeenteelu place bi euh, topp ci gannaaw AS Monaco mi nga xamante ni ñoom dimanche ki danañu fekki Angers GIG seen dëkk ci bu 15 heures 5 la ñu koy daal di door waaye ci dimanche gi ba tey 11 diggante Nice ak Montpellier lay daal doon 13 heures dana tase ak Nîmes Bordeaux moom dana fekki Lorient Rennes 13 heures Dijon lay daal doon Strasbourg dana tase ñi di waa ba tey ci bu 13 heures niki dimanche gi Real Madrid moom mën nañoo jàpp ni dafa laj ndax dafa match nul ca dëkkam zéro bi partout diggam ak ñi di Betis Séville euh, la mu ko jural nag moo di boobu moyul euh, ñi nga xam te ñu di waa Atlético Madrid Madrid mën a leen roppi ñoom Atlético Madrid dimanche gi danañu daal di dem ca euh, Pays Basque Slovaque ñi di waa Athletic Bilbao euh, niki dimanche gi tamit euh, jàpp leen ni FC Barcelone moom dana fekki Villarreal ci dëkkam match googu danañ ko daal di door incha allah ci bu 14 h jotee ci lu jëm nag ci wàllu classement championnat bu Espagne premier Atlético Madrid 73 deuxième Real Madrid 71 troisième FC Barcelone 68 championnat bu Allemagne foofu Bayern mën a jël li nga xam te ni moo di titre champion ñoom nag jekkoon nañ ko lool ndax genn ndam rek la soxla woon maanaam ñetti poñ ngir mën a kon bokk jël lii di titre bi donte saison bi jeexagul waaye ñoom dañu ko daal di ndax dañoo ñàkk euh, samedi gi seen diggante ak Mayence Mayence leen daal di daan ñaari bal ci benn ñii di waa Dortmund ñoom gën a dëgëral seen taxawaay ci yoon gi nga xam te daal la ñu nekk ngir xëccu bokk euh, déwén ni ñoom ñooy teewal Allemagne ci wàllu compétition européenne waa Dortmund seen ñaari bit nag ko ko moo di doom Norvège bi di Hollande la ca des na ci wàllu jongante ñeel ba tey championnat bu Allemagne euh, dimanche gi danañ daal di suivre euh, sorti Leipzig féetee si ñetteelu place bi ak Stuttgart match googu incha allah danañ ko daal di door ci bu 13h30 jotee. ñu dal dal suñu réew waxtaanee wàllu basketball ak taxawal bi nga xam te ne moom la ñu bëgg a def taxawal yi nga xam te ne moo di équipe nationale jigéen ñi di yëngu ci rugby à 15 loolu nag di guléet muy am ci réew mi ni ki dimanche gi sax ci bu 14 heures jotee ñoom dañoo fas yéene kon bokk tase foofu la ca Bel Air ngir daal di kon bokk euh, tàmbale euh, liggéey bi dañuy daal di déglu ku yor bu mu jokkoo bi euh, ci biir commission féminine bu fédération sénégalaise bu rugby di Anna Michel Prera fédération sénégalaise bu rugby bi dafa nekk di di def ay jéego ci taxawal équipe boo xamante ne moom mooy rugby féminin bu jigéen à euh, quinze ndax ba muy joué ba tey rugby à sept la daan joué léegi nag dañuy taxawal équipe rugby à quinze mu nekk innovation bu mag bu rëy ci ñun ndax euh, depuis fan yi yëpp xale jigéen ñi ñu ngi entraîné di di def ay stratégie di taxawal stratégie yoo xam te ne moom la pom moomu laaj muy euh, rugby à quinze boobu defa dafa stratégie yëpp pour euh, am kattan gi nga xamante ne ak kéemtalaay bi bi pom 15 rugby à quinze bi soxla léegi dimanche nag la ñuy def marché bi nga xamante ne pour une première ci histoire du Sénégal day am rugby à quinze bu jigéen ca terrain wu ba lañ ko bëgg taxawalee. Euh, objectif bi tamit en fait dafa nekk euh, dañuy préparer euh, match test yi nga xam te ne moom la Rugby Afrique taxawal te Sénégal bëgg cee jël na ci devant yi mooy li nga xam te ne mu ngi def kéem tolluwaay ndax ak. équipe boo xamante ne xale jigéen ñi pare nañ am nañ confiance am nañ détermination bi li xam ne mosuñu koo ñàkk tey lañ ko gën a yokk dina permettre aussi tamit ak euh, ci staff bi <clears throat> ñu xool euh, liñ ñu doon jàngal fan yii yëpp liñ doon jàngal xale jigéen yi ndax mu ngi fa lan lañ ci defaraat lan lañ ci war a yokkaat ngir euh, par rapport ak seen attente en fait ñu naaj ci dem ak yal nañu yàlla may ñu egg ci ak jàmm ba ñoom tamit liñ doon sóob ci ñun mu antu lépp incha allah dimanche gi lañ koy daal di amal ca Bel APR ànd sec fédération sénégalaise bu rugby kon bokk mbokk yi sport weekend fii lañ koy daal di yamale Cheikh Tidiane Diagne moo fi teewoon ci micro bi ci machine gi Matar Samb di ko jaajëfal di rafetlu sa ànd ak rajo Futur Media. ñi koy jaajëfal moom tamit Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi foofu leen yem ak ci xibaar yi ne sut ñu dafa parteel ci li ci gënoon a El Hadj Ndiogou Diène muy kaddu yi jawriñ jor wàllum wér-gu-yaram Abdoulaye Dia xam ne ne ubbi nañu enquête ngir leeral mbirum lakk gi faat ñeenti liix ci hôpital bu Linguère mu demoon démb foofa ca Linguère gannaaw jëyi jooju liggéeykat ci nekk ci hydrocarbures di wàllum pétrole ak carburant dakkal seen gréew beneen nub ndaje doxoon démb seen digganteeg euh, waa ministère du pétrole laata nag geneen nuk ndaje goo xam te ne bi yoon àllarba lay doon tàggat yaram football doomu Sénégal bi équipe am Watford delloo si kon équipe am Watford ci première division bu Angleterre moom mu dugal but bi yéegal euh, Watford euh, dégg ngeen ci kon euh, si leeral yi ci sport weekend mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène woon ci micro bi ànd ak Amady Ndiaye ci machine bi léegi léegi perte de vue ñu leen di déglaat waxtaan mi seq na nag Pape Nion di artiste chanteur léegi lay doon jaajëf